kum ndayu Sénégal doomi Jomaay nee na Jomaay lañ ko tuddee Pawlish Pawlish Mbaye wayaaya bu may wax waay yëpp ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho bu may waxati ba muy yàq di ma déglu di ma bàyyi xel yéese yi ma yor moo gën a bon ci yéesi samay na la bëm bëm ma ñëw million abonné laa bëgg léegi wala ma dagg live bi ku bëgg xam lu xew fii tey waaw ci bésu Pawlish Mbaye bi mu am ñaari seex kenn ku mu duppee ko Bijou Ngoné confrontation Bijou Ngoné 2STV macha allah keneen ki mu duppee ko nag sangu-sangu yëpp muy Seydina Muhammad ki nga xam ne makk la juddoo ñu fekk ko Médine teral ko fa jox ko fa jàq jox ko fa nekk mu nekk fa kuy way ta wayo yonen way wa deena ka nga way nin na Seydina Mohamed boo ko tuddee doom dina jël juróom-ñaar ci sa famille tàbbal leen àjjana kon yan nañu yàlla defal tawfiq ak taysiir aman inna allahuma saaba lii na man kaana la kaana laa wolu